jàmbaar dina seet si woon ko fekk mi ne la wax ko yee Mbaye noo def. waaw yaa ngi si jàmm Mbaye. Mbaye Mbaye li nga nelawee na de. fatigue bi walaay. da ngaa fatigue da ngaa fatigué. mais ban heure nga war a def entraînement. huit heures et demie. huit ma sama réveil sonnéwul en fait. ko ah fekk ko muy nelaw ñu yegg ko. daa am ko la jaay si biti ñu ngi lay xaase souvent Viva bi nii lay demee ay surprise ay surprise ay surprise restez scotchés e sur la télé. on a notre journée avec l'international Baye Diagne waaw. léegi nag yow rek la journée ah. yéen nañ ko cette fois ci nag xam nga moo ci des dem entraînement. waaw ñu dem ba saa ni c'est l'international Mbaye Diagne Mbaye Diagne am mbégte tey nga xam ne nag mooy lan. Kara Buruk. Kara Buruk <laughs> non mais tur bi na de. dafa métti. Kara Buruk. kon yi moom yombul. waaw mais tey noo dundee matinal bi am ba foofu la ñu commencé. waaw tey moom euh, avant tout maa ngi ñëpp di nuyu waa Sénégal di nuyu sama famille di yaay di nuy samay parents mhm. ah, waa chaîne bi 2STV. tey ñu ngi la fekk maa ngi lay yee nga naan ma non dafa teel. waaw yaa yee. sept heures et mhm. te man maa ngi defoon suma réveil à huit heures pile ba doon génn kër gi huit heures trente cinq yooyu moo tax bi ma bi ma yee dama tiit pour man sax dafa am lu xew sama xool heure bi gis sept heures et ma ne bon lii dafa mhm. teel mais noonu laa jugee. préparé dem préparé wu ñu jël temps. ñu ndekki ensemble. mu defal ma omelette. omelette bu saf. <laughs> réussi nag réussi. omelette waa booy affaire <laughs> si leen si leen dem non réussi waaw. waaw si leen dem nag bi ñu ngi bi mais gis naa entraînement bi gis nañu may métti na si naaj bi. waaw na kay parce que matinal bi moom. Mhm. réveil bi day métti ñëw tamit day métti boo ñëwee naaj bi day tàng chaque fois nii lay mel mais bon amuñu choix quoi. mais Mbaye après mën nañu wax sept mois d' absence. saison bi passée moom très dur. waaw loolu moom ñu sant yàlla rek parce que comme ñu ngi ñu mel ni tey mosuñu blessé. Mhm. def nañu sept mois yu absent yi nga xamante ne tey yàlla moo ko dogal suñu carrière mu doon première fois. Mhm. Eh, ñu nangu ko gëm ko waa muñ toog. liggéey nag liggéey lu bëri sax waaw parce que vraiment ku ne sept mois sans jouer. Mhm. xam ne yombul quoi. mais mentalement foog nga am. mental d'acier pour nga mën see génn. waaw mentalement ku amoon habitude xëy le matin dem entraînement. nekk tout le temps ci public bi am match nga toog am benn blessure loolu mooy mooy aussi footballeur des fois da am yenn yoo xam ne doo ko sóoraale mooy mooy mooy. waaw waaw moo tax luy wax rek nga euh, adduna lu nekk da si xaj. waaw adduna dafa gudd tànk comme ni ñuy wax rek. Mhm. football moom ak blessure ñoo leen rek mooy am mooy bu ñëw bu mu la bett quoi sóoraale ni xam ni rek ñoom ñaar ñoo ànd mhm. nga nangu ko te dalal sa xel te xam nga positif quoi mhm. parce que loolu mental la laaj di toog muñ xam ne da ngay ñëwaat en force mhm. waaw ah, Mbaye bëgg na Turquie de Mbaye daal Turquie na daal moom Istanbul la wax <laughs> Mbaye am nañu bëgg xam Mbaye si club la bëgg la jaar un balaa muy ñëw Istanbul Istanbul bi nga xamee nag bu nga ñëwee fii nag Mbaye Diagne Mbaye Diagne Mbaye Diagne Mbaye Diagne meilleur waaw man dëkk yu ma jaar moom. Mhm. maa ngi commencé Italie. foofu la sama carrière commencé ma génne fa dem Belgique ma jugee Belgique ma delluwaat Italie jugee dem dëkku naar yi. Mhm. dëkku naar ma jugee dëkku naar yi ma delluwaat Belgique. Mhm. beneen équipe bokkul. ma jugee Belgique si laa dem Hongrie. Budapest ma jugee Budapest si laa dem Chine. ñu ma jugee Chine dafa ñaari at deux ans si laa ñëw Turquie muy Kachim Pacha et ma jugee Kachim Pacha si laa dem beneen kii muy Galatasaray. si mhm. laa jugee Galatasaray dem Angleterre West Brom. Mhm. jugee West Brom dellu si waat Galatasaray. jugee nii si équipe bii nii Heard through the grapevine, she a great time. Yeah, it should be a goddamn crime to look that damn fine. Gotta lock her up and throw away the key. Or you can lock her up and give the key to me to take it down low, down low Drop it down to the ground floor, the ground floor I just wanna go and explore, and explore Ooh baby, I just want more, I want more Got a body like a rock Mbay Boubacar Koundé dina doon presque ay 7, 8 club yi nga xam ne def na ko waaw dina ëpp sax parce que dama la wax dëkk yooyu noonu parce que exemple Belgique joué naa fa ñetti club yu bokk voilà comprendre nga mm, mais am na ku ci nekk waaw ku ci nekk am na benn particularité boo xam ne ko wax différence région yi ak déjà yi aussi. waaw euh, tactique yi bokkul xam nga Turquie tey c'est pas tactique comme championnat Espagne France tout ça. Mhm. dafa physique. Mhm. championnat Turquie dafa physique dafa metti quoi ay dalante la football naar la quoi dafa metti. Mhm. bon laaj na patience laaj na physique laaj na mentalement pare physiquement vraiment. surtout même physiquement. waaw physiquement. ma fi da ngay gis jour yoo def trois. affaire yu grave sax mais day day contact day métti quoi si wàllum mhm. bëggoon. waaw man dem naa ba benn instant championnat bi miis naa ko. xam nga ko xam naa ko bu baax. voilà moo tax euh, sax ma mun si génn mais vraiment championnat bu bu bu métti la. bu mhm. nga xamante ne neexul quoi. du nekkul championnat moom da ngay taxaw sax xam nga ñu football taj nga taxaw bal bi ñëw sa tànk. neexul mais Mbaye a su s'imposer. Ah. Mbaye mën nañu wax des grands euh, trophées yi nga xam ne yu mag yi. fii la ko fii la ko gañee mbay fii lañ ko gën a xamee mbay fii moo fëlal mbay mën nañu wax fii nii waaw Turquie moom vraiment comme ni ma wax rek dama fi gagné lépp yàlla dogal na loolu mhm. gagné naa fi championnat gagné fi meilleur buteur gagné fi coupe et que battre fi record bi nga xamante ne tey mhm. meilleur si bi am tànnee ci championnat Mm-hmm. Turquie bi muy doogee am ba léegi nii meilleur buteur étranger ba mm-hmm. léegi man maa battre record bi record bi c'était c'est combien de buts man total fu mu nii boobu ma koy génne maa ngi def 31 buts benn saison benn saison waaw waaw boo xoolee total fu mu toll nii maa ngi si ay 57 buts quoi 57 mm-hmm, buts ah, alors euh, mm, du ma amul lu mu mën a wax yàlla dogal na loolu yàlla championnat bi fii moom. e am na lu nga xamante ne am na. loo gis naa Turquie bëgg nañ parce que gis naa benn jour ñuy waxtaan ah. Instagram ñu gis Turquie nuñ wu ci Mbaye Diagne Mbaye Diagne Mbaye Diagne Mbaye Diagne Mbaye Diagne. waaw Turquie lan moo boobu tamit. yeah Turquie moom vraiment bëgg nañ ma lool. waaw di sant yàlla parce que équipe dëkk boo gisee ma gën fi toog tam loolu la. parce mhm. boo dem boo fa jàmm doo fa toog yàgg fa te am naa fi jàmm te maa ngi fi am suma teranga te vraiment amul benn problème dëkk bi daal daal neex na Istanbul daal am nga fi jaamu dëkk bi daal neex na. moom xam na man moom comme ni ñuy wax rek. sama passion football la woon. Mhm. te dama bëggoon football dimbali waajur yi. Mhm. Ah, te yàlla dogal ne maa ngi dëkk bi nga xamante ne maa ngi fi am jàmm maa ngi fi suturloo moom moo waraloon ñu bëri ñu naan mbay génnal fii génnal fii demal fee nii mais xëy na yàlla moo dogal woon. fii maa sama teraanga fii la nekk laa loolu laa gëm ne. Euh, parcours bi tamit bëri na ay coow. Mbaye day jóge ci club bi histoire moo ko fay jëlee Mbaye dem na benn championnat Mbaye ñu ne ko bu benn match Mbaye bu dóor penalty Mbaye dóor penalty. Mbaye daal daal coow da ko topp. <laughs> football moom ak coow ñu ànd. Mbaye nga ñëwaat ci match bëgg ñu bëggaat nga éclaircir ne match boobu lan moo fa xew. waaw ah, loolu loolu Ligue des champions woon quoi mhm. loolu. Paris Bruges la woon. Mhm. waaw loolu deuxième mi-temps laa duggoon mais bi may dugg dafa fekkoon ma mer nag. parce que coach bi sax mu may dugal mais jubóowuñu woon. woon quoi xëy na amul woon choix mu dugal ma. yàlla def mu dugal ma mhm. mu denoon euh, deuxième capitaine bi moo doon milieu terrain moo fa desoon. Mhm. mu ne moom mooy dóor te malheureusement moom moo waroon dóor sax. Mhm. mais xam yenn saa yi attaquant yi nga jël risque quoi. waaw parce que tey xëy na raté naa ko. moo tax wax ji bëri mais su ma ko dugaloon. wax ji du bëri mënoon na mënoon naa dem beneen. mais bëri woon na coow mbay après. waaw woon na coow ko par rapport ak na coow ah man nangu ko parce que man maa jël risque bi quoi. Mhm. man jël risque bi damay damay dama koy nangu ma jël suma responsable. rate naa ko wax ji na ñu dem VCR ñu jotee xuloo man ma toog xam ne maa jël. risque bi dama koy nangu. Mhm. mais après dafa am la ah. mhm. ku dóoru doomu traité quoi. Mhm. ñu dem dellu Belgique coach bi teg ma ay amande. amande exactement loolu loolu ma écart tout ça affaire yooyu tamit noo ko dundee amande yi ak écart ñu la woon carrément ci groupe boobu tout le temps la presse mu woon Mbaye Diagne groupe bi nekkatu ji nañ ko. écarté nañ ma 5 millions CFA. 8 mhm. ba pare mu defoon ma écart mais écart boobu si profité quoi comme ni may wax rek avant boobu dafa dañ jote woon quoi. Mhm. waaw parce que man. mais mbay nag mbay nag da nga ñëw jote woon mbay da nga tere mbay nag ku kii mënoo dem ku ci boole da nga jote nga jote ak moom. parce que mbay bañkat la xanaa mbay bañkat la waaw man dañ ma am li ñu mënoon play li ñu mënoon def te bëgguma ko woon. comme lan comme lan dafa métti woon suma kaw. comme lan man ba may dem Bruges. Mhm. waru woon dem Bruges Bruxelles euh, Anderlecht laa waroon dem. ah ok ok. Bruges fekk moom ma toog maa ngi kër Cheikh Kouyaté mu war a fàtte. mu war a jóge Angleterre pour dem signer Anderlecht président Bruges woo suma suma agent ne ko mbay bu mu dem. dañ ko mhm. soxla te ñun dañ dañ ko bëgg a joué lépp def tout xeex jëloon ma jet jet privé tout ça. Mhm. ma dem ba foofu. maa ngi jóge équipe nationale boobu. CAN 2019 CAN 2019 maa Krépin ñoo delloondoo. waaw kon defe naa ne. amu problème physique amu problème mu dara. ñàkk compétition carrément. Mhm. ñu entraîner tout ça ma xool 3 4 matchs entraîner di ma ñamal ay 10 minutes ay 15 minutes. ci jour boo xamante ne instant boobu maa jël meilleur buteur troisième meilleur buteur Europe. Mhm. xam nga. Mhm. am na yoo xamante ne du question da nga koy mais dafa doon xam yaa ko liggéey. Mhm. après nga ñëw ci benn équipe boobu noonu tey ñun la joué loo ñu neen laaj pourquoi te amoon problème ba coach bi lu ma wax ma dem gis ko comme man tollu ma foo xam ne noppi. man damay ñëw wax ak yow. su problème amee. ma ñëw gis ko ne ko. qu'est-ce qui se passe. Mhm. pour kaay aw ma man damay ñëw fi pour jue parce que su loolu ngeen ngeen bàyyoon ma ma dem. Mhm. ñëw mu fi woon pour toog maa ngi bàyyi sama équipe Galatasaray mu dem Ligue des champions ma bàyyi Anderlecht ñëw fii parce que xam nga. pour temps de la soxla voilà mu ne ma équipe bi dafa suude depuis avant da ngay patienter parce que maay coach seur bu jotee di nga jouer ma ne ko coach non loolu du wax. ma ne ko lii soo ma ko kon xëy na du ma fii sax ba ñuy wax. mu merci entraînement ñu commencé kon ni ma fon dina changé changé wul malheureusement si say six ma joué pourtant quatre laa dugal. waaw si deux yi si deux nga amul mat but. cinq matchs la si total yi ma joué quatre matchs. matul quatre-vingt-dix minutes. ay dix minutes la quinze minutes. trente minutes boo am dëgg si man. bon anyway loolu passé ñu dund loolu. suñu carrière ñu am si expérience. Mhm. tey loolu bu amee ak suma aaj fu ma toll nii man naa am ne sax mën naa ko jéggal. Mhm. parce que yenn saa am na fooy toll di nga ne amul problème. na fooy toll il faut nga wax ak parce que ñu euh, nga baal ma tubaab yi coach yi yenn saa yi jaar sa kaw quoi. waaw day am benn côté raciste a wax day am day sa kaw te man a mhm. baax. mënu koy muñ. moo tax ñu dégg foo ne dama bëri problème wala dara. mais man bëri ma problème ak coach amul benn problème. yow daal temps de man waaw man mën naa ñëw am naa droit ne la coach qu'est-ce qui se passe. waaw ne je suis pas performant. pourquoi je suis pas nga ne ma neex naa ma xam. man loolu moom du ma ko du ma ko sóora du ma ko bëgg a xam sama bopp ma xam bu ma nga ne ma lii moo manqué nii nii ma jéem ko liggéey. Mm-hmm. wala ma jéem a xam nu may def. mais may ñu ngi doon wax foo fa garaaw jógee bureau ju ñëw naat euh, Galatasaray nag équipe boobu nga xam ne pour rester fa rek problème la mbay di rayante mbay nekk ne doo ma bàyyi du ma leen bàyyi. lan <laughs> ko dund Galatasaray waaw waaw waaw Galatasaray <laughs> euh, loolu moo caaka rek soow. Galatasaray problème bu ñu mës a am mooy man ak coach bi la woon dafa benn boy bu ñëwoon ñu def transfert quoi. Mhm. benn boy buy joué équipe nationale Turquie la mu doon joué d Angleterre ñu joué ma commencé débuté Europa League maa dugal contre PSV Eindhoven éliminatoire des champions. Mhm. ñu dem euh, Écosse ma dugal Europa League éliminatoire. yéen ñëpp bu ñu seetaanee bu ñu waxee dëgg yàlla te gis ne bi ñuy joué marché marché yeeg yëpp. waaw meilleure performance man la woon. Mhm. Europa League bañ qualifié maa ah, ngi ok tout xam nga ñëw jékki-jékki un jour nii rek teg ma à côté. écarté la. waaw commencé ne day joué le booy parce booy nouveauté la da koy jox temps tuuti xool ko booy bi day joué équipe nationale Turquie dañ koy woo. Mhm. pas joué titulaire mais dañ koy woo. Mhm. comme ñoom dañuy valoriser valoriser seen jeunes yi. waay ñuy bëgg di leen valoriser pour ñuy leen di jaay ñu dem seen équipe nationale léegi dañuy xool kenn ki nga xam ne mën nañ ko éliminer. éliminer éliminer la. bu dajeeg yow. mu ñëw si man ma ne ko fi nga laal baaxul <laughs> bon. dama ko def dama ko def. waaw ma ne ko nag statistique yaa ngi fii tegu man mën naa d' accord kii ñëw def performance def performance man nangul ko loolu. Mm-hmm. bul ma play li nga xamante ne nii da ngeen may da nga da bëgg a éliminer merloom pour ma def benn affaire nga écarté moom la yooyu noonu garaawul mais dinaa la wax li nga xamante ne moom mooy dëgg quoi noonu kese la mais man dama essayé di wut ay nekkee di football amam ko course bi jàmm sama jàmm la damay li ma bëgg jàll dem su ma yoon mais dugal nga mais tamit dugal nga Angleterre aussi Angleterre nga dugg fa aussi def fa benn saison ginaat fa mhm. lu tax toogoo fa waa euh, dil bi man dama demoon foofu prête. Mhm. prête bi mooy su équipe bi rimanere resté première division. Mhm. contrat bi day day déclenché automatiquement contrat bi damay dem trois ans. da nga dem foofu noonu. équipe bi fari malheureusement si équipe bi wàcc. seen contrat mu wàccaat. wala te bu ñu fay dem dafa méttoon point yi dafa xawoon sori. def nañ lu nekk. bon je peux dire que loolu suma carrière mooy suma meilleur championnat. Mhm. parce que ñëpp dañu yaakaaroon suba damay chuté. waaw da nga vraiment. Ah. Mbaye non Mbaye attanul championnat Angleterre man xamuñu ne man lii sama problème mooy défi yooyu noonu laa doon man tout le temps dañu koy man damay nangul gars yëpp lu ñuy wax. Mhm. nañuy wax rek man mooy liggéey di avancer maa ngi signé suma contrat depuis deux mille août ñu ngi ci ñaata deux mille vingt deux léegi dugg deux mille vingt trois defe naa. <laughs> treize ans loolu léegi mu dugg treize ans. <laughs> yi yàgg nañu wax nag. may jaar fu nekk. ma dem Angleterre dégg naa loolu daf ma gën a yokk jom daf ma gën yokk liggéey ma dem foofu fekk fa beneen rythme ma liggéey. nga liggéey. parce que Serigne Touba dama doon yow toog suma kër maa jëndal suma bopp ay matériels yoo xamante ne ay biceps la ay di ko liggéey suma biir kër liggéey lu bëri sama jabar mi du ma bàyyi ma fen et eh, bu ma demee entraînement gars yi balaa ñu commencé dugg terrain ma dugg gym def ay affaire défi boo waroon relever xam nga loolu xamante ne pour ma la plus. Mhm. mais bi ma duggee si terrain bi gars yi man dama ne lii mooy Angleterre wax ji dafa bëri. billaahi parce que wax bu ñuy wax dara tey boo joué équipe bi mag nii ngay natt sa bopp. Mhm. xam ce ma joué ay équipe joueurs yi nga xam ne ay yu mag lañ. Mhm. foofu ma imposé suma bopp xam ne fii mën naa joué yàlla dogal équipe bi wàcc. nga dellusiwaat moo tax ma dellusiwaat mais tey ku joué ak Manchester Chelsea. Mhm. ay Wolves ay Tottenham tënir sa bopp sa premier. bëri mhm. dem nañu fa chuté tey joueur yu bëri fa di joué d mhm. kon wax ji moo bëri rek quoi xam nga toog si biir di wax dafa yomb mais football bi dafa metti tey a joué ak ñoom Turquie sax laay des parce que dañu seetaan entraînement bi. sànq may gis nañ ne carrément sur le plan technique. booy yi seen passe yi des na contrôle bi. Mhm. mais gis naa tamit pressing bi moom nii la. physique bi aussi c'est ça loolu la quoi ñoom loolu la leen di jàngal même suñu coach sa loolu lay wax. dañuy bëgg boo sa kaw. xam nga te loolu il faut nga pare physiquement rek réfléchir bu gaaw am doole tout ça moo tax ñoom aayal ñu comme tak tak taki yooyu noonu. Mm. non loolu loolu du championnat Turquie loolu du championnat Turquie gis nga joueurs mag yi fi ñëw yëpp dañuy réer man maa la wax loolu. billahi ni ngi réer suma équipe joueurs yu mag yëpp yu bëri jaar nañ fi ma nekk fi. man maa lay wax lii de dañuy naan ñi xam supporters yi amuñu patience dañuy saaga ñi ma mhm. am li ma xam rek ma am ñii ndeysaan ay joueur kaamil lañ uh-huh. mais jou fii moo métti moo métti mm-hmm. Galsen xam nga ñaata joueur kaamil ñoo fi jaar dem ma di tiim xam te ñoo xam ne dañ doon sa bëgg joué ak ñoom mm-hmm. ñu ñëw passé en échec ngeen di fay xaalis sax boo xam man naa ne sax eggul sama moitié ñu dem nii Falcao jaar na fi mm-hmm. ñii nii Espagne di dugal ay bi noonu daaw moom booy boobu ñoo nekk xam nga frère Cissé Aliou oh. euh, Salou Cissé. waaw ñoo bokk benn équipe waaw. Serigne jógee Tottenham euh, Flamme bari joueurs mu bëri sax moom damay fàtte sa tur. <laughs> mais ñu ñëw ci gis la nga dugg ci beneen club la ñoo dem équipe nationale ñu jeexal ci euh, carrément sur le plan. Hmm. carrière club yi ñu gis la nga ñëw ci Cameroun kam Kara Group. Kara Group mënuma ko wax nag jàppale leen ma rek. dafa métti dafa lan moo lan moo motivé sa choix bi. Ah, ak su fekk fi nag un euh, grand un grand entraîneur surtout Pirlo moom bu ñu ko waxee moom. Mm-hmm. ndaanaan la de. ndaanaan la <laughs> man man man au début dama ne woon Galatasaray laay maintien. Mm-hmm. suma dernière contrat quoi. ma de préparation ñoom xam tout ça. xam ne tey ren ñoom ñu ngi bëgg beneen défi parce que coach bu bees ñëw na. Mhm. chaque fois ñu ngi ni ne xam nga jënd ay xam nga. Mhm. yooyu la ñuy bëgg. Eh, ñëw ma waxtaan ak ñoom ne leen man vraiment comme si blessure laa jógee j'ai envie de jouer tant de jeux laa soxla. xam nga man luy sama problème mooy. dafa am loo xamante ne instant bii Turquie équipe bu ma dem dañuy am lu ñuy xaar si man. Mhm. parce que lu ñu gis ma def fii la. day métti mhm. ma dugal. Mhm. ma la a dugal. xam nga loolu dafa métti. défi la tamit mais. li la dafa métti waaw xam nga li ngay boot dafa bëri quoi. moo su ma joué dugaluma sax damay métti suwaar mu dugal. bon premier match ñu ngi liggéey nang-nang pour ñëw. yaa ngi na ne def vingt minutes rek. waaw waaw wala plus de vingt minutes tellement large. Uh-huh. tellement large yàlla mën na lu nekk comme def naa fi benn saison 31 but kon yàlla mën na loolu. Uh-huh. xam nga. Uh-huh. waaw juste may nag ñu pare foofu noonu nag dugg ci ah on est champion d'Afrique ah. <laughs> 2019. balaa la blessé. man nangu kontaan parce que. Sénégal Sénégal moo gagné. Mhm. yéen yéen a parce que yaa ngi woon seen éliminatoire parce que ñun ñun mënuñu woon werante mhm. tey mun nga toog ne champion d'Afrique nga Sénégal la. Mhm. amul Fatima amul Mbaye amul Sénégal la wax. c' est bien vrai ku bëggoon danga nga ciy bokk si biir. mais ku sol maillot Sénégal rek si nga bokk. gagné nga ko. comprendre noonu la demee dañuy xooli benn vidéo bi euh, ñëwaat. amiin amiin yaa rabbil aalamiin allahumma amiin amiin yaa rabbil aalamiin allahumma amiin yàlla yàlla na ko attaquant de pointe eh, eh. C'est pas une histoire de copain. Wallahi. J'attends de voir sur le terrain. Inch'Allah Rabbi noonu lay demee. Inch'Allah. T'as cinq mois. Inch'Allah. T'as pas le eh. la dara en plus lan moo fa xewoon sax lan moo fa xewoon sa. dara man de dama demoon nii rek. Uh-huh. sama doomu ndey moom ma ñëw. Bambali Bambali man yàlla xam na ni xaw ma woon sax dinaa fekk Alioune bon dama dama ñëw di dugg si néeg bi néegu yaayu saayo uh-huh. fekk ñuy waxtaan ñu ne ma toogal ma ñëw toog si la ñuy waxtaan noonu waxtaan noonu rek waxi xam waxi rafet daal. si uh-huh. biir. noonu bi bu ñu waxtaanee pare si ma ko ci wax loolu amoon na ma si teg ne loolu xam nga. waaw reetaan ne waaw rek jàpp suba mais loolu moo wax nii mu wax ma ko ñaaka ma ko wax. xam loolu def xam naa ko. liggéey xam nga li la war xam naa li ma war. Mhm. su ma sañoon loolu du génn sax mais yàlla def na ñu génnee ko wax ji xama nit xaar te man su ma ko waxee woon su ma ko ñàkkul wax damay liggéey te liggéey moo war pour ñëwaat. Mhm. man su ma àdduna coupe du monde rek laa jéewul. leader yëpp joué naa joué nga ko macha allah ma dégg. joué mm-hmm. naa Ligue des champions joué naa Europa League joué naa Coupe d' am na solo comprends nga joué naa ko ay joueurs yi nga gis. Mm-hmm. di rêve moo tax man dama sant yàlla ma gëm. doylu ma nag damay continuer di liggéey. Mhm. waaye lu yàlla def loolu la. bay sa relation ak Sadio Mané dañuy dañuy jeexal ak yenn joueurs si tanière mais Sadio Mané moom c' particulier parce que euh, c' particulier moom la wax parce que gis bu baax euh, seen relation seen i waxtaan wante tamit surtout nga dem ba Bambali journée boobu Ligue des champions finale Ligue des champions je pense que yow dong yaa fa newoon jour bu ñu invité aussi. man ma wax rek daf ma bëggal équipe nationale saa bu ñu toogee day jékki-jékki ma toog sama néeg bu woo ma ne ma mbay kaay si néeg bi kaay waay <laughs> ah ma ne ko dama sonn may doyoo ma dara ma ne ma kaay waay dama la soxla ma ñëw ñu toog ñu waxtaan xam nga kafoore. Uh-huh. naturel quoi. Uh-huh. parce que xam nga nit yenn saa yi nga di nga bëgg xam nit wala ànd ak fekk. Uh-huh. yaa koy xëcc ko. parce que li mu doon moo tax. ngay def loolu. waaw ah, man de première. dama ko fonk parce que dafa doon ko koo xamante ne dafa naturel dafa màndu xam nga et que deful dara muy dara te man noonu laa mel man ni may gis ni sama bopp dara nekku si man mën naa mel léegi mu jeex man laa xam xam nga moo tax man ak moom gëmuma yàlla mën nañ am problème. Mhm. macha allah xam nga fu ma waxee. Mhm. parce que moom dina ma wax dara nii sax. Mhm. àdduna mënul neex mu naa ko wax lu nekk wóolu naa ko xam nga fu ma waxee. dañuy waxtaan lu bëri. moom. Cheikhou Kouyaté. Yankuba Yatta laa njëkk a xam. waay bi may ñëw Belgique. Mhm. moom ma dalal foofu. borom baax la aussi. ah mhm. kooku am na loo xamante sekk nañ ko loo xamante sekk moo ko sa Sadio. mais Cheikhou daa takk ñaareel de est-ce que Mbaye am na ñaareel man damay takk man it. <laughs> léegi ragal man dama ko wax de. Ah, da ngay takk ñaareel. Eh, il faut ku may takk nag. Uh-huh. waaw dama ko may dara. <laughs> waaw xam lu ma la wax. ah doo ko may dara mooy lan. dañuy takk guddo. Ah. moom <laughs> ko bëggee mu fet amul problème damay que fet loolu. xam nga eh, doo ko may eh, doo ko may 10 millions wala 15 millions. du ma ko may 5 millions du ma ko may 2 ah, na jigéen bu ñëwee sëy si. waaw sëy tax. lu raw ay millions loolu <laughs> waxatuñ ko. waaw kon yor yëpp ñoo koy bokk. waaw kon jeex na taat mais daal doo diggewoo 1 million diggewoo 2 millions diggewoo 3 ñu feebar ñaa koy jox chaque fois waaye sama jabar bu dee bëgg na ma te yàlla tax su ñëwee sëy si ñaari Serigne Touba Mbaye Diagne à la recherche. barke maam Bamba bu ñëwee sëy si dina am lu raw ay millions. <laughs> waa jeex na tax Mbaye merci beaucoup. yaa may dégg waaw yow bu la neexee tam yow nga xool rek. kan dëgg neexul wala <laughs> nga xool ah ragal man na gars yi ñëwee ñu ma c'est ça problème. <laughs> man dama ma ragal la bàyyi ma ragal la gis ngeen ko c'est c'est ami c'est un te damaa yow ma tegal ma omelette na ma ndékkil mooy am na ñoo xam ne damay ñëw am mbégte <laughs> ñëw ànd ak ñoon si émission bi vie ma soo gisee ma am fit tey ji ñëw Kalem tàgguma ko ñëw tijji ko filmer ko noonu si chambre am si fekk dafa fekk moom moo ma ko may lii nag mooy vie ma vie gis ngeen ko ñuy seet si suñu naanal sportif yi ñu dalal ñu waxtaan ak ñoon waxtaan ak ñin seen jaar-jaar un peu par rapport à leur club partout lañ fi indi woon nag cette fois ci ñoo fi nag Turquie Istanbul neex na. waaw dañuy nuyoo il faut que mu am ñu ma kii. affaire ñoo jërëjëfal yow. deux fois deux rek man. non Mbaye jë deux fois bi wax naa la bu soo ba tey nga xam ne deux fois deux bi lan la. loolu après la loolu code loolu am ñu ko xam bu ko déggee sax dinañ jëli. waaw baax na ay sama yaay jërëjëfal sa famille waaw mais man maa ngi maa ngi jéggalu ñëpp maa <laughs> ñëpp waa Sénégal ñëpp ñoo fan lu ma waxee loo xamante ni dafa maa ngi jéggalu ñëpp. waaw di nuyu waa Sénégal ñëpp di bëggee ñëpp di ñaan yàlla ñu nekk ci prison bi yàlla leen fa yàlla génnee. amiin waaw yàlla defal leen jàmm foo ñu nekk maa leen bëggee ñoom ñëpp di bëggee suma copain Hassan maa leen bëggee bu wér eh, di wax ni rek ah, suma doom day mbër noree ni di nuyu waa parcelle di nuyu waa HLM 5 waa S4 Urbam waa HLM 6 yaa may dégg nuyu waa waa xoolal waa waa Saly fu dëkk dafa bëri nag moo tax il mu nuyu ñëpp. sama yaay moom mention spéciale maa leen nuyu nuyu mi ngi man Anta laay nuyu nuyu yow di nuyu Rama nuyu Madiama Alassane Sida xam nga di bëggee ñëpp di wax ni rek yàlla na Sénégal jàmm yàgg fa quoi. ñu dem jëli coupe du monde bi. incha allah loolu deux fois deux. <laughs> jaajëf tey jàmbaar. bëggee jaajëf